bi mhm. euh, ñu baal ma xam naa ni tuuti le temps que Serigne bi ma am question quelques questions yu ma ko laalaaj Serigne Serigne Moustapha Serigne Moustapha tey gis nañ ni euh, mhm. fi réew mi toll mhm. gis nañ ni parce que tamit yàq der bi dafa dafa bëri ci wàllu Serigne yi euh, ci wàllu ñi nga xam ne aussi dañuy dañuy def lu jëm ci wàllu ñaan yàlla tey ñun dañuy jot parfois ay messages yoo xam ni yoo xam ni sax parfois duñ koy bëgg jàllale wala duñ koy bëgg won nit ki waaye tey nga toog fii nga xam ne askan bi yëpp daañu la déglu baax na tuuti tamit ñu xamal leen parfois ndax dama ko mës a jot benn sëriñ mu ni ma Moussa client yi dañuy tooñ ndax ñoom dañuy nekk ci États-Unis woo la ne la xoolal ma nga xoolal leen ñu war la yónnee duñ la yónnee hmm. est-ce que da nga dund nga situation yi mel noonu. waa loolu dund nañ ko. waa am na ci client yoo xam ne dinañ def ay ay fautif yu bëree bëri. waaw kay parce que man tamit loolu dafay baax ko. ni mu amee ci client yi tamit ci sëriñ yi ndax ah. tamit. bëri na ñoo xam dañ lay woo ne sëriñ jiw def na nangam wala jox naa ko sama xaalis mhm. envoyé moom sama ay ñaan wala def na ma lii def na laa mhm. loolu moom bëri na ci mhm. waaye nag loolu moom fépp foo dem ci liggéey bi mën ti nekk rek dina ci am dina ci man nit woo na ma téléphone nekk France jigéen la tamit jëru ma tudd turam ndax loolu du dara àdduna la rek te da jeex bi ma woowee comme li ma leen wax sànq rek képp ku mënti doon ci àdduna en moins de cinq secondes mën naa laa wax lan mooy sa waaw bi ma woowee ma waxtaan ak moom mm-hmm. mu may seetloo mm-hmm. ma ne ko dinaa la seetal seet nag kenn du ko def noonu mm-hmm. ndax nit moom du xëy toog di seetal nit ñi noonu rek di seetal nit ñi noonu ci bi mu may woo noonu téléphone ma waxaale ko tur raw xaanam mu ne ma waaw kay loolu rek laa bëggoon a xam daal di ma merci daal di coupé ndax man dama fee toog ngir di wax nit ñi seen tur raw xaan rek ndax man dafa amul sama liggéey dama koy def. waaye dama ciy jariñu ndax yàlla suñu borom moo ñu liggéey. yaa ngi wax lu yaa ngi wax lu ngi wax lu am solo. Mhm. ñëwal soo paree ma toj ko ak yàlla. Mhm. léegi nit ki bu fekkee yaa ngi sa liggéey. Mhm. woo keneen fekk ko ci profession ba pare. utiliser ko utiliser ko te doo ko jox dara. est-ce que loolu moo moo fi technique ndax yow mi koy def bëggoon nga ñu def loolu. li ñu bàyyi xel mooy ëllëg yàlla suñu borom subhanahu wa taala ku nekk li nga defoon dina la ko tegalaat. ci écran yi dina ngandi seen écran yi mhm. ñëpp di ko seetaan ñu njëkkoon a judd ci aadama mhm. ba ñu mujjee judd mhm. noonu lañ koy tegee audio yi leer nañ du am ay xoosoog yooyu yëpp du ci am leer nañ kon loolu moo tax nit ñi war a sàmmante seen digg ndax yàlla suñu borom dafa mottalikuloo nit moroomam mhm. yàlla boo ko jéggaloo boo ko tooñee boo ko jéggaloo mu jéggale mhm. te wax na ne moom ab jéggalekat la bokk na ci turam yi nga xam ne dañ koy wooyee mooy xafaar xafaar mhm. mooy xafaar zunub bi nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy jéggale bàkkaar yi te wax na ci alxuraan ne bu ngeen ma jéggaloo dinaa leen jéggal istaghfiru rabbakum innahu kaana xafaaran jéggalu leen seen borom bi nga xam ne ab jéggal akoon te bu ngeen ma jégloo nag yursil samaa aleykum midraaran mhm. dinaa wàcc taw bi mhm. kon loolu day firndeel ne jéggalu xéwalug yàlla daf cee nekk mhm. moo tax ñu lay wax ne astaxfirullah ñi nga xam dañ koy wérul dañ la plupart dañuy faral dañuy faral di bëri wërsëg ndax loolu yàlla suñu borom moo ko digle kon loolu liñ ci bëgg leer lañ mooy yàlla moom wax na ne day jéggale wax nañ tamit ne man maa bind doomu aadama bi ci matadi mhm. kon loolu day firndeel ni ñun mën nañ ko tooñ waaye comme que moom mooñ bind ci matadi bañ mhm. dañuy jéggale ndax matu mhm. waaye suñu diggante nag nee na ku nekk boo ko tooñee moom rek moo la mën a jéggal bàkkaar ba yàlla dul ko jéggal moom bi nga tooñ rek moo la mën a jéggal bàkkaar bi yàlla dul ko jéggal loolu tax yàlla suñu borom wattali ko doon nit moroomam te bàkkaar kat sart jéggalu ko bokk na ci tudd bàkkaar ba nga def mhm. kon nit ki boo ko tooñee wala nga jóg wala nga wax ko lu wut a def mhm. wala nga fekk ko ci liggéeyam mhm. yàqal ko boo koy jéggalu da ngay tudd la nga defoon ne ko maal defoon na ngam jégal ma waaw loolu moom lañ ci leeral d'accord parce que Souleymane soo gisee ma ma yaatal foofu euh, man dama jege trop internet yi waaye tamit dama jege tamit ñoom dama leen a waaye man mënoo maa wax ni ma nit nii la mel may jàpp loolu tànk laajuma ko parce que dama yàgg jànkonteel ak ay nit ñun mu Moussa mhm. ñun clients li ñuy tooñ ay ay buñ ko doon wax mhm. waaye tamit ma dajee client yi ñun sëriñ ko doon wax mhm. waaye day fekk est tegoon nañ ko ci ay charte ba ñuy doog a door ndax nit ñi man jàpp naa ne wàllum ñaan dañ koy fooye wàllum ñaan gis naa ñu bëri ñoo xam dañ koy fooye waaye tamit waaw doguma la sax waaye léeg-léeg kenn woo la nekk bitim réew ne la seetaan ma nga ne ko nangam laay seetalee nangam laay seetee. Mhm. mu ne la seetaan ma après dinaa la yónni. ba ko wóolee ba seetal ko après doo ko déggati. ba ilaa yawmil abad. dañ bu dee si nag. Hmm. comme du ma défendre si rek. waaye kii waaye dina leeral. ñoom ñaar bu dee wàllu sëriñ si. ki nga xam ne yaa ngi ko gis di ko seetaan. Mhm. mu ne la maa ngi tudd sàngam dëkk bërëb sàngam. di doom diw ak diw. Mhm. ñu xam ko ci dëkk ba. kooku ñi ma wuta def lu naka su do mm-hmm. noonu nak su do noonu ndax sa bokay jeex mm-hmm. fek ko fek sa bokay ko tuddee xam ko mm-hmm. kon par exemple man la man mam Cheikh Anta Mbacke moy sama mam, waaw yaa ngi Mbour maa ngi nekk Mbour daru salam moy sama cosaan ndax sama waajur jigen fofu nek mbake la san surtout mam Cheikh Anta la maam Cheikh Anta moy ki Sëriñ Tuubaa ndek a ba pare mu leer ma ma gis ma lay nax kon loolu du ma ko def. te saa yoo la wooyee jot la. te saa boo ma wooyee di ma jot. waaw man amul kenn koo xam ne di nga woo dama jot. Mm-hmm. te li gënoon neex mooy. Mm-hmm. xam nga am na ñoo xam ne luñ dugg rek dinañ ci dugal tappale. Mm-hmm. maanaam tey bu fekkoon di nga gis ñuy jëflanteel kat. wala ñu indi lay audio ñoo xam ne. seetal nañu wala ñu jëflante ñoom bañ lay sant ñu wan la ko. di nga gis keneen koo xam ne dina jël ay nit fay leen ñu ñëw ne sëñ bi defal na ma nangam te fekk loolu dëgg. loolu moo tax ñu naan. duñ woolu ñu baax ni ndax ñu bon. ndax ñu bon comme ni ko olof di waxee. ndeysaan am na waaw li nga li nga wax loolu la. waaye daal sëriñ bi mm-hmm. ngeen gis moom itam mu ñëw rek. Mm-hmm. ne man maay nangam te nangu leen wax fan la bokk. waaw amul benn identification. waaw tamit bala ngaa dem ci war ngaa defar attention bu baax a baax. Mm-hmm. Moussa xam nga règle boo gis dafa am exception. te si loolu la nekkoon maanaam tey boo koy xool bu baax dafay mel ni tey. Euh, ñi nga xamante ne dugg si métier bi te xamuñu ko dafa mel ni yàq ñoom seen métier. waaw ñoom seen métier ñoom ba tax na dafa am benn laaj bu am solo mu ko bëgg a laaj. ñëwal ñëwal parce que ñi nga xamante ne dañu dugg seen métier di ko yàq mooy mm-hmm. dañu bëri si dëkk bi mm-hmm. ñoo xamante ne dañuy sëriñ mm-hmm. te foo leen fekk ñu ngi sol ay yére yu yu mag di naxaate naxaate naxaate naxaate bu bëri yaakaaroon ne loolu nga xamante moo leen loolu soogeewul li nga xamante moo di seen problème keneen ku ko oo dafay yaakaar ne ñoom ñoo ko yem ndax nit ki fekk wóoruwu la mënoo koo nax mm-hmm. kon ñoom dinañ fexe am benn comportement boo xam ne nit ñi dañ leen jox confiance mm-hmm. bu ñu joxee confiance nag ñu def seen manin mm-hmm. waaye loolu firiwul ne képp koo xam ne noonu ngay kii rek da ngay def loolu comme nit tam ni nga xamee ne yow jub nga am na keneen koo xam ne yàlla bind na ko waaye jubul dafa dëng kon ñu xamee ko noonu daal nit ñi tamit ñoom ñi nga xam ne ñoo dem sëriñ ñu xool ci nii dem mm-hmm. waaye sëriñ si tamit ñu bañ leen a tuumal ñoom ñëpp ne ñoom ñëpp a yem mm-hmm. noonu lay jaay la ak jënd mën nañ ko tuddee du jaay jënd ndax mm-hmm. ñaan yàlla moom ñaan la tudd waaye mën nañ koo tuddee noonu ñaanal ma yàlla nangam man la soo ma defee defalee nangam de wala soo ma joxee nangam ma ñaanal la yàlla nangam loolu loolu signature la waaye ci làmmiñ la am si lamine leer si ñaati la bu yem ci lamine léegi bu fekkee ni nit ki wax na la loolu ba nga ñaanal hmm. yalla suñu borom ta ta nga xam mom hmm. nga gisoon mu génne la man na nangam hmm. nga wolu ko ba ñaanloo ko mu ñaanal la boko gisé na nga sant yalla sant ko wala nga sant ko sax doo ko sant muy man lam yaskuri nasa lam yaskuri laax gisul nak ah am nga droit woo ko ne ko nangam gisuma ko ba hmm. ko joxon ko sa alal tamit hmm. mu ñaanalaat la hmm. wala mu delo la sa alal deug na serigne bi li nga wax dafa wo wo am solo mu ñaanalaat la wala mu delo la sa alal est ce que yakarone tay tey am na ñoo xamante ne comme ni ngeen wax wàllu istikhar dañuy dem gëstu ni nit ki gis nañ ne ki kat nangamam bi da du soti est ce que waru ñu won am mandu ne ko nangam de du soti bu ko defé koku dina xamne ki de waxon na ma ne nangam du soti ba tax na kii ما تقول إنسان والله العظيم والله إلى الكعبة أم نكو خمني ما نجت كندا بفكر سير عن فيديو بدي نكو خم ما شاء الله سير عن نجين فيديو ينغ خم نجالنا وأنا ما وهم بين كوزين بوا خمني مين جن دقي بين تيميري نك تدا كذا ما خم بندج خم دركل دخو بندج جاب مغ دفع فيبر من من دخ فيبر بيجي جوجو ردي سكزور من من اللي نت ساب فيبر يمنا على واحد ندين جوجو 15 heures la ma woo téléphone. Mhm. whatsapp appel whatsapp la. Mhm. bi ma woowee ma xamal ko carrément ne ko kooku de li ñu suñu borom xamal du jugaat. waaye nag yàlla suñu borom rek moo xam. ndeysaan waaye kooku du jugaat. macha allah sa léegi ci suba gi. 10 mhm. heures bi ma taalee sama connexion gis mu bind ma message. ne man nañu ko ñaanal yàlla faral ma ko léegi. imaginel mu demoon ci benn charlatan mën na koo wax kooku dana wér laaj ko mhm. xaalis défidi mhm. kooku bu ñu xëyee mu faatu mhm. waaye daal ñu xam ñu xàmmee bu baax ci nit ñi dem ñi ñaan laat tamit gën a jàppaat bu baax kii seen bopp daal gën a sàmm seen bopp allah am na am na solo kon su lay kon li ñuy def rekk mooy euh, ñu dugg ci li nga xam ni mooy wàllu anglais bi pour mu def ci ay leeral tuuti mais mais su lay balaa ñuy tëj mbokk internet yi yéen ñi seetaan Euh, loo gis ci àdduna yàlla def ci yàlla def ci bind ñaar mm-hmm. ñun de euh, liggéey bi ñuy liggéey yàgg nañ ci te mën nañ ko te xam nañ ko mm-hmm. man laay waxe sama bopp waxuma pour sëriñ bi mm-hmm. waxuma pour Souleymane man am na loo xam ne de mën naa yëkkati sama loxo teg ko ci kaamil dóor ko ni soo ma ko joxee léegi ma liggéeyal la ko jox la ko du am benn werante waaye am na loo xam ne aussi boo ma ko joxee naan la may ma ay fan mm-hmm. ndax liggéey bi day nekk lu compliqué mm-hmm. waaye dina loo xam ne aussi boo mm-hmm. naa ci média mais dama naan la man am naa liggéey boo xam ne une minute laa koy def am na liggéey boo xam ne seconde laa koy def am na liggéey boo xam ne deux heures de temps laa koy def am na liggéey yoo xam ne cinq heures de temps mhm. am na liggéey boo xam ne ñetti fan lañ koy def mhm. kon loolu aussi boo ko waaw liggéey boo xam te mënoo ko mënoo ko nga mhm. joxe ko loolu xam ngeen daf ñu dal ñi ñu nekk ci wàllu média kon ñoom tamit ñoom ñi nekk ci wàllu ñaan yàlla ñoom aussi comme li ñu ko wax contrat ci làmmiñ la waaye ñaan bañ naka ba dañ ñi ñaan néewoo damay dem nangu waaye damay dem ñaan yàlla mais mun nga ñaan nit tey bu bañ Mhm. yàlla suñu borom nit ñaan na ko tey mu bañ mhm. waaye ñaan ko suba mu nangu mhm. loolu yëpp daf ko leeral que ni mën ngaa ñëw ñaan nga waaye nga jëlaat sa téléphone nga am matu woowaat ko ni ko ah sëñ bi man di wax dëgg yàlla loolu gisuma ko waaye doo ma baal nga ñaanalaat ma ah, loolu ñëpp mën nañ ko mu ñaanalaat la fekk jour ba moo doog a jot kon dañuy fàtte ni lépp loo gis heure la ak temps bu bu jotee rek. Mhm. su ne kon su lay ñu bàyyi. tamit ma leeral tuuti. Mhm. équipe yi nga xam ne dañuy fubal bépp équipe boo xam ne. Mhm. war ngaa fubal boo ñu woowee dinañ la wax résultat yi nga xam ne mooy am. loolu moom maa ngi mën a jëm képp. yow moom sëriñ bi bu fekkee ne nag am na nu muy taxawee. buñ la nee dañ lay gañe moom kenn mëntu ci dara. macha allah ni ma ko waxee nag man affirmation yi may def rek. dama koy confirmer. lépp lu ma xam ne wax naa ko dama naa leen mhm. kenn mënu ci dara day mhm. am comme ni ma ko defee woon ci élection législative ne leen mhm. benn bokk yaakaar day gagné te kenn mënu ci dara noonu laa ko waxee waat kenn mënu ci dara nag génne ma ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala ndax moo ma xamal li tax ma koy wax yàlla moo ma ko xamal ñun comprendre nañ xam nañ équipe <laughs> <laughs> bu mën doon ci àdduna bu mën doon ci àdduna moo xam mu nek Europe mm-hmm. Asie wala fu mu mënti doon ci aduna bi mm-hmm. buñ ma wowe mm-hmm. bu mako sété man na naa leen wax ñom ñoy gagné wala dañ leen di gagné ñom ban heure la ñuy dugal ak match bi day ni wala nii demé fofu nak man nga def ay sarax yo xamné ne dañuy wëlbati match bi waye am na nu muy taxawé nak kenn dootu ko mënante wëlbati loolu moom mën naa ko wax Israël la ci waaw lool mom amul lu ma ciy regretté wala lu ma ciy delu dellu ginnaaw bu dee nag ñi nga xamné ñu nek Europe amna ñom ay xeeti match yu ñuy def. bu fekkee dañ laa joxandoo li mu match bu bëri am na ñu koy def. jox la ay juróomi match wala juróom benn ñoom xëy na ay yeneen jeu lañ ci def. bëgg nga jox leen victoire yi. léegi mën nga koo seet ba pare. Mhm. ñu toogaat deux jours ñoom ñu def seeni mas yi wala ñu dem seet benn si ñu def ay sarax ñu kii ko te fekk yow defoo si dara léegi loolu mhm. mën na laa tromper looloo mhm. tax ma leen leeral bu dee benn match la moo xam waa équipe booba ci boppam bu ma ma wax leen résultat yi kon ñoom ak nan la protéger bu fekkee ñoo am victoire ñu protéger ko ba kenn du ma est ce que jarul na kon ñoom ñu def par benn match benn match benn match ba jël seen li nga xamante ne la loolu mën naa loolu mooy gën de hmm, chaque jour bu ñu dëmm dëmmalee benn match rek mhm. ñu gis la nga wax leen wax leen résultat yi même bu ñu ko tamit ñu ñu pour ñi nga dañu dégg anglais pour wax ak ndax mhm. marchand